dama <laughs> ni coppatiku gina na gaaw coppatiku coppatiku daa da gina gaaw nen dafa coono ba ken yebu leen ah wa moom ye ye ye ye nen dafa coono nag ndax am ngeen jàmm mbaa kan kenn yebu leen amati ngeen jàmm ndax réew maa ngi koroñool le gaa yi dama ni coppatiku moo mo gina gaaw gaa dama ni wëlbatiku à tout le moment mën am bul bi aussi à tout ma moment mën tourner boo nekkee ci mbir ah gars yi man sama xel ñaaw na de sama xel ñaaw na de léegi nag gaay yi dañuy layam layam bi dem seetaani Baye Pape njaay Baye Pape njaay nanga nga def ak am nga jàmm ana waa kër gi gëj naa la ana kaso ba naka ba am nga jàmm mbaa kenn yebul la mbaa kenn yebul ah, waaw man nag tey damaa bëgg waxtaan ak yow Baye Pape Ndiaye am nga jàmm mbaa kenn la yaa ngi ci jàmm dama bëgga waxtaan ak yow ci fair play nag ci fair play ndax àdduna daa jaxasoo te àdduna wóoru te yàlla du nit te mbir nag boo ci nekkee bam toll fii wax dëgg yàlla euh, ba dara desul loolu ñu naan léegi mu neex neex na ba noppi ah boo bëggee ko day am lu muy nuru léegi nag bay pap Ndiaye tey damay déglu sa émission du début à la fin bay pap du début à la fin nga wax sa xalaat ma wax la li ma xam ci wa zaayiran nag wala wa baati man bay pap Ndiaye kalifal xaar am nga jàmm mbaa kenn yabu la ana ma dama xale yi nag ñu ngi ci jàmm ah wa fan ya de bi bi la jàppe yóbbu la wax deug yalla sénégal gep la metti dé libéra pap ndiaye da daawoo dugg ci commentaire té gisoo libéra pap ndiaye ji daawoo dugg ci commentaire té gisoo dé de sénégalais ñaxtu nañ ko fu né dé man mi de lima ci def ci vidéo na nga def ak jàmm am nga jàmm ah, ah wa bismillah rek waxal sa xalaat tax dégg na fan yi di nga ñew dégg na fan yi di nga layam layami duggaat ci yëf yi waye nak ni nga nara a ren ah yée yée yée yée yée yée Baye Pape du foofu de na nga def ak coono am nga jàmm ah waa maa lay déglu bisimilah Baye Pape. émission balance muy fépp fu ngeen ñu doon seen ci ay chronique daanaka dinañ ko dinañ ko tàmbaliwaat kooku ñu ngi leen ci jox rendez-vous te ngeen xam ni Pape Ndiaye ba ba ngeen xamoon. moo fi nekk ba léegi. Euh, leneen li ma ciy dolli mooy. xam ngeen deux mille vingt et un. deux mille vingt deux. deux mille vingt trois. ñëpp xamoon nañ samay position. samay missile ak samay rafale ñëpp xam nañ ban côté la doon jëm. Mhm. waaye 2024 nag faw retournement de situation am. Mhm. comment ça bi yoon moom bi da beneen orientation lay jël. lu tax maanaam maanaam. maanaam du xamoon ngeen position yeeg missile yeeg rafale côté bi mu jëmoon. waaw waaye bu ma reprendre samay chronique. Ah. beneen orientation Misili moom beneen boor la jëm ñeneen lay visé. ban ban ñan lay visé mais pourquoi yéen ko xam léegi. mais tegu ci dëgg rek ak ci yoon. déglu leen rek dinaa leeral. vas-y yow amoo sax pour. vas-y waaw mais mais que Ba. yow mais rek bul ma yàqal la mbiru néeg la yow. waaw bul ma yàqal la ah si ma deman footu mbiru néeg la toogal bañ a. maître baal ma rek bul ma yàqal la. vas-y day mbi li mu tontu. waaw vas-y vas-y xam nga mën nañu interpeller mën nañu poser question. waaw kon may leen ma ma tontu. ndax ci ci question bi mën lañ ko jëmale. waaw waaw li tax ma ni samay misil ak samay xeer beneen côté la jëm dafa am lu ko waral. donc ma ñamal leen tuuti lancement rek ci bés bu ma tàmbaliwaatee samay chronique fa ma jëm. dama leen ci ñamal juróomi ponk. bi si jiitu mooy euh, fii ci Sénégal. dafa am ay bukki yu sàngoo deru bëy ak ay mbëtt yu nuuru ci ndox mi bañ a génn. te ñooñu ñi ma ci identifié formellement identifié. dañoo féete ci côté opposition. fii ma toog di wax ak nii ils font tout. pour que Ousmane Sonko bañ a génn ci kaso bi. Hmm? Hmm? lu ne ñi ngi koy def pour indil ko problème gii nga ba pare bu ñu jógee na xëpp lépp état te l' état n'a rien fait. l' état hmm? fait que son travail. alors léegi nag bëri na ay giitangaas yoo xamante ne mi ngi ci réew mi lu ci ëpp ci opposition boobu la jógee ba pare ñu jël ko jiñ ko état donc mbëtt yooyu. dinaa leen dévoiler kenn par kenn te xam naa ne ku ma ci pare yow moom waxuma parrainage waaye signature doo ko am donc loolu benn aspect la ci bu mu reprendre samay chronique deuxième non non may wax ma daal may wax ma daal deuxième point mm-hmm. euh, deuxième point mm-hmm. deuxième point mm-hmm. ci li nga xamante ni dinaa ci ñëw ah, léegi avant première lay def ci chronique ba su ma ko tàmbalee non may may ma mettre ma tànn rek ma interpréter crédibilité deuxième point en ce qui concerne le général Moussa Fall seetlu naa ne temps yi critiques yi bëri na ci kaw coow li bëri na mu xam ci lu bari nag dama ne lu bari luñ koy waxal ak lu luñ koy critiquer dara du ci dëgg lu bari loo xamante ne ñi ngi ko koy waxal man dama jàpp ne sax général Moussa Fall c'est le meilleur général bu gendarmerie nationale musul am lu ne jiñ nañ ko dafa bokk ci complot bi ji bi bi complot contre Ousmane Sonko dafa def li dafa def la alors que loolu yëpp dara du ci dëgg man jàpp naa ci général meilleur général bu Sénégal ak gendarmerie musul am ci la bokk donc ñi nga xamante ne dañ koy critiquer je leur demande de faire très attention ndax mbir mi dama cee xam lu bari te bés bu mu reprendre samay chroniques, lu baree baree bari dina feeñ donc boobu deuxième point là. Hmm. troisième point en ce qui concerne l'immigration clandestine hmm. critique yëpp jug na ñu koy jiñ état hmm. ma def ci samay enquêtes yu saf sàpp nag di xaar reprendre chronique pour wax ci <laughs> bàyyi Pape Ndiaye gars jëf bàyyi pap Ndiaye Eh, guddal fan mbaa am nga jàmm mbaa kenn yebu la <laughs> bay pap xanaa xanaa waat bay pap xanaa dañ laa liggéeyaat nag am fële daa métti ah daa métti fële na daa métti ah bu ma la déggee daal yow daal boo dellusiwaatee da ngay contre opposition <laughs> ànd ak waa ñàkkurab <laughs> <laughs> léegi nag Baye Pam Ndiaye euh, pour mu gàtt rek li ma la mën a xam tënkal la ko mu gàtt rek euh, bis boo dee layam lay bi ba ne dalaat ci yëf yi ba indi say missile xool ma gilet laa anti missile anti missile laa nii di layam layamee moom anti missile du fëkk du bënn boo layam layamee ba indi say missile loolu lancé laa ñu delloo la ko point bo boo wee Baye Pam naa def ak coono a ah, wool naar ci guuxum soow et eh, la porte est grandement ouverte bay pap na nga def ak coono du ma la neexal du ma la layam layamee du ma la aayoo nen ne maa ngi lay déglu nag ñoo ngi lay déglu sax laay wax boo layam layamee ba indi say missile ñun ñu ay anti missile boo layam layam lee boo layam layamee ci fair play waxuma la glace la ñuy jënd waaye njéeg ay congélateur yaa ngi may dégg fii moom loo fi sànni rek ñu delloo la ko ci wa zaahiran nag ak wa baati ngay layam layami noonu nii laay waxat lii laay waxat lii laay waxat hmm? ba nga raaree laa xam ne nan ñu ngi lay tulliyee ba nga raaree mel ni oto bu dugg garage laa xam ne ñu ngi lay liggéeyaat ñu ngi lay tulliyee nag waaye nag ma xamal la leen de yee yee diggante bi nga absence ak léegi plus de quatre cent cinquante mille personne sont intégrées <laughs> boo bëggee dégg-dégg loo wàq gaa yi suur ci wa zaahiran wala wa baati man Pape Ndiaye defal sa boppam nit defal sa boppam nit nag defal sa bopp ab nit lu leer laa lay wax defal sa bopp am nit nag a coppatikoo gi na gaaw lii lan la lu fi ñor ban koy macc yow bu nee la sànnil say missile yow fan nga koy sànni yow bu nee la sànnil say missile fooy sànni say missile Baye Pape Ndiaye na nga ak coono bu nee la sànnil say missile foo koy sànni eh nous sommes prêts anti missile boo layam lay ba indi say missile ñun ñu anti missile boo layam lay woo ñu ci fair play ñu ngi ci fair play fii boo fi woowee naar ci guxum soow lay metti caw lay jóge rek lu leer laa la wax ah suñu digganteeg suñu digganteeg yenn chroniqueurs yi procureur yi ci waroon a génn ndànk procureur yi ci waroon a génn ndànk nga xam ne ah nga xam ne Pam Ndiaye mënoo nga xam ne Pam Ndiaye xamoo tus nga xam ne Pam Ndiaye peccum liir bu neexee rek patriote yi tee ci mbagg fii ku fi taar tàkk ñoo la boyal waaw fii ku fi tàkk ñoo la boyal ñu ngi lay déglu nag xamaguma loo indi Euh, maa ngi lay kontaane di la sant di la gërëm euh, di kontaan ci kontaan gi nga war a dellusiwaat ci yëf yi boo ñëwee nag ci fair play ñu ñëw yow ci fair play boo ñëwee ci ci ñun ak ay kii yooyu ah moom ay missile ah ñun ragaluñ ay missile bay pap ay missile ah dee ragaluñ ko lépp lu fi waay wax bu dee dëgg askan wi xam nañ lépp lu fi waay wax bu dee ay ay détournement de la de la cerveau gars yi xam nañ ko fii suñu cerveau yi kenn mënu koo détourné nag. sunu cerveau yi kenn mënu ko détourner sunu xol yi li ci ne kenn mënu ko génné kuy ñew and ci ñun dañ ci and ak ñun ku ci mënta and ak ñun nak ah lo ñu sann ñu délo lako parce que nak amna né anti missile ta bi nga bàyyee nek nekk foofee ci dungu sin sénégalais dina lan daj pour nga génn lo lan waxet pour nga génn sénégalais nak amna fo xamné sen loxo sen loxo jotté wu fa la plupart des chroniqueurs kun ci xass né taral ba nga dem waxuma la euh, motax dof vraie référence la la plupart des chroniqueurs ku ñu ci kuñ ci ni talalax ba yóbbu la fële ba tulliyeewaat la boo génnee danga naan sénégalais jaruñu ko ndax lan bi ma nekkee fee kenn defuma nàngam nangam nangam am na foo xam ne loxoy sénégalais jotuñu fa léegi nag ah ku goree di nag ànd ak sa kii nag sa nafsu nag waaw dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla contre nag ah waaw ba pare nag loo ci góobee na nga ko gar rek bàyyi procureur ma jaaxal ci yëf yi rek bàyyi procureur laa xamul nu ma koy def yàlla na bigam jeex yàlla na bàyyi progrès bi gam jeex yàlla bu mu am dig bu mu bindee <laughs> bàyyi Pape Ndiaye bis boo woowee naate gooxum soow di nga di lu dem duggee sa bopp bii xaw ma fu la wate nag waaye fexal karaw ji dellu ci yi xeetu neel baaxul ci réew mi leer na voilà ñu ngi lay déglu nag man xëri xaw ma loo indi xaw ma loo indi xaw loo indi waaye bis bu yegsee ah bu ma ko analyser ba xool ferñeent yi ci ne ah bu dee déglu laabul na ñu déglu ko bu fekkee déglu laabul dañ la koy delloo nag ah déet waaw bu fekkee déglu laabulu nii say parole lan lay delloo ci wa zahiran wala wa batiman coppati ko nga nag non c'est pas Pam Ndiaye c'est pas lui de Yeah, yeah, yeah. est un carcasse qui a porté le habit de Pam Ndiaye, mais est pas Pam Ndiaye. <laughs> yeah. Kasoba daa tàng nag boo génnee tamu ak ngor ni. Yeah, yeah, yeah. <laughs> noppi sax man ah ñu ngi koy déglu ci fair play loo wàq rek nga suul de loo wàq rek nga suul de bu dee missile moom ñun amul problème problème côté missile nii déedéet ah, ah, ñu ngi ay anti añ ko ay gilet par balle amul problème côté missile moom garaawul man pour man sax ay lance roquette ngay wax ak yooyu waaye missile moom boo bëggee dégg dëgg ah moom naa def ak yoon a bàyyi ba am nga jàmm ah waaye ñu ngi lay déglu maa ngi lay déglu man xëri